Ndeysaan dox ci diggante Roubé ak ndeysaan Mbay Duudu yaay kati Mbay gu Duudu yaay kati moo la féete càmmoñ Roubé moo la féete ndijoor Mbay Duudu yaay kati kenn du leen présenté Duudu yaay kati mi lamb di jooy mooy baayam du rakki baayam du magi baayam waaye mooy baayam bi ko jur ndeysaan moom mbay duudu yaay kat ikiri Fallaye Balde la nekk Sil Balde ko indi ndeysaan Roubé mu ngi nekk ikiri Bada Jon ah ñoom ñaar sànq gis naa Sil Balde ñëw ba moom dee ko da ko wàccal ci tànk yi ndeysaan duube ak mbay duudu yaay kat mbay duudu yaay kat jiital tànk ndi joor ruube jiital tànk ndi joor ruube cokkaas na bayan koy déglu ruube mbay duudu yaay kat ñoom ñaar fi combat bi di mujj Roubé Mbaye Doudou Yaye Katy Roubé Mbaye Doudou Yaye sanna da fayu ma door mu daanu du am wala déet jàppante nañ Mbaye ak Roubé da xeex jàppante nañ da kan moo nar a génn saako yi Mbaye ak Roubé Mbay Duudu yaay kati ak ruube Mbay Duudu yaay kati ak ruube Mbay Duudu yaay kati ak ruube Mbay Duudu yaay kati ak ruube Mbay Duudu yaay kati da nga jàppante ndeysaan ndeysaan jàppante nañ Mbay yaay kati ak Roubé lan moo nar a xew actuellement ñoom ñaar ku ci nekk kenn jàppul ci ngemb morom door na ko tànk ndeysaan Mbay door na ko Mbaye Doudou yaay kate ak ruube Mbaye Doudou yaay kate ak ruube Mbaye Doudou yaay kate ak ruube Mbaye Doudou da ngay jàppante ñoom ñaar. ba ci lan moo a xew. awa ak Mbaye Doudou yaay gati. daw na jël ko. ñoom ñaar lan moo a xew. ko filaas na ko bañ na. gala jaa ngay dakk. sagar yaa ngay wadd ñaari xale yaa ngay bëre ruube ak mbay dudu yaay kat mbay door na ña yi bare ngay nag yàlla ñaa ngay génn mbay dudu yaay ak ruube door na ko tànk mu bañ Mbaye Doudou Yaye Katé ak Roubé Mbaye ndeysaan ndeysaan ak ay dudu yaay kat ndeysaan ak Mbaye Doudou yaay kat ndeysaan Roubé ak Mbaye Doudou yaay kat moom ñaar ba tey dara xewagul Roubé ak Mbaye Doudou yaay kat combat ba nga yàgg ay ca mu gaaw waay mu gaaw mu gaaw mu gaaw Roubé ak Mbaye Doudou yaay kat yi ndeysaan ruube ak mbay dund kat alaaji ak mbay dund kat ñu ngi ci combat bi ba tey combat ba yàgg na ruube ngay dund ci suuf mbay daa bëgg a jàpp waaye ruube da koy xañ jàpp jaadu dudu yaay gati ak ruube mbay dudu yaay gati ak ruube yor na ko ci ay wàcc na a mbay sama ko da dégg ay jamono bu demaan mbapat faas ku mës daan bëru way day dagg way wa ne la kaa ñu bëre ngeen bëre ba noppi mu daan la dooga continuer ndeysaan mi ngi noonu ba tey dudu yaay kati ak mbay mbay dudu yaay kati ak ruube mbay dudu yaay kati ak ruube ndaysaan ba da jona ngi nii sama yot taxaw neex ñaari combat daf koo ñàkk bi mooy ñetteelu kombaam cokkaas na ndeysaan mbay duudu yaay kati ak ruube ñoom ñaar ñu ngi lewaatoo ba tey ku nekk ngi xool sa moromam ci bët mbay ruube ak duudu yaay kat mbay dudu yaay kate ak rube mbay jokkaas na rube fayu na ndeysaan mbay nag boo ko xoolee taxawaay bi taxawaayu mbër la mbër na ko tànk takk na mbay tak na mbay dudu yaay kate takk na ko takk na ruube ruube bu dee maayoo da ngay jéem a dindi tekk bi wóorut takk ba deñ na ndeysaan laay laay la laa xale da koo bëggoon bët mbay du di ay da koo bëggoon ndeysaan daa bëggoon def demi jaay ci poqataan bi jargandaloog moom këpp ko bu at appi nga bàyyi ko mu def wala nga rëpp ko mu def trois appi nga yeggale ko ndeysaan mbay dudu yaay kat yi ak ruube Mbay Duudu yaay kati ak ruube Mbay Duudu yaay kati ak ruube ndeysaan ñu ngi noonu combat bee ngi bëgg a yàgg nag saa su ne moox leen ko combat bu yàgg ak dàll bu xat ñooyam ci xol la lay jàpp. ndeysaan ndeysaan bay duudu yaay kat ku ne am nañ benn avertissement. arbitre bi la waat na. ñu ngi lay waatoo. bay duudu yaay kat ak Roubé. ndeysaan ñu ngi noonu. lan moo nar a waay bëre leen waay taaba jeex na arbitre bi sifle waat ruube ak mbay dudu yaay kati mbay dudu yaay kati moo leen ndi joor ruube moo leen féete càmmoñ ruube ak mbay Ndeysaan ñoo noonu jàppante waat nañ Roubé ak Mbaye Mbaye dudu yaay kati ak Roubé Ndeysaan ma arbitre bi doonu ñoom ñaar a ngi jàppante ba tey combat door na ko tànk bañ na caxabal na ko bañ na kal na lan moo mbay ruube mbay dudu yaay kati ak ruube caxabal na ko daan na ko laa ilaaha illallah eh. Eh. ay mbay daan na mbay duudu yaay kati daan na ay waay doomu duudu yaay kati bi daan na ee eh, kiri bawol tay